daanu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 asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur u Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci yéen li may def mooy nag tey ku ne xam na ne ñu ngi mercredi àllarba maanaam 29 septembre 2021 dañ leen di bàyyi ngeen dem déglu yëglikaay liñ ñu andil ñu dikkaat ak yéen fi nga xam ne moom moo di si plateau bi asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 29 septembre 2021 dañuy kin ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy dooreete ko yëglikaay ba tey lam ñu xëy andil ñu ko ci xëtamu njëkk bokk na ci Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier ba nga xam ne le 28 novembre war nañoo ba daal mu nga war a def nag ba jaarale ki nga xam ne ni daal moo di B52 bi nga xam ne ku ne xam na ne bañ fi jëkkee daje dafa amoon ndam ci koom yëglikaay bi moo xëy tey tegal ñu lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay yi ba tey ci yëglikaay yëglikaay boobu di sunu làmb mu ngi xëy tey dinu xamal ne daal ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang numéro 2 daal yëglikaay ba moom la xëy tey seqal waxtaan mu yaatoo yaato booy Niang nag dikk na ci carrière am début ba ba fi mu toll tey jamono ja nga xam ne sax ndaw tey Tyson su mësaan a bëre ba daam na mu ko daan toppee maanaam di bokkoon ca ña nga xam ni daal ñoo daan bëgg ndamal Tyson la ba bokkoon ca xale yi nga xam ne dañ daan toog buntu këram ngir defa naan attaaya wala sax ngir mën koo gis booy Niang ñëw na ci loola ak tamit ku mel ni bàcc seeraas moom booy Niang tamit ñëw na ci la nga xam ne jëkk na koo gañe ci lamb wala boog kase biñ ko njëkk a fay mu toll ci cent vingt mille francs CFA Boy Niang ni na boo bëggee dégg-dégg loolu moom itam marqué na ko yemu ci am na leneen loo xam ne marqué na ko mooy defet bi nga xam ne jëkk na koo am ci lamb nee na guddi googu moom nelaw bu maam daf maa tëwoon tëcc tëcc ba nit ñay nelaw keroog maa ngi ne jàkk di xool ndax am lu ma naqare am lu ma metti ñëw na tamit ci foo xam ne wane na fa boppam gañe fa ay lamb mel ni ki Tayba Njaay nabit maanaam dëkk bi ñuy wax Tayba Njaay daal dem na fa bëre fa ay yoon wala boog wane fa boppam ne jamono jooju sax mu fa daan dem ne na am na ci lamb joo xam ne kere laay Pythagore mii ñu xam mu nekk roog énergie maanaam mooy kera moo bëre grand combat ba yëglikaay ba xëy na tey dikk ak moom ci lu mel ne ki noonu ba tey moom Boy Niang mu ngay wax ci tournoi bi nga xam ne gañe na ko fa nga xam ne moo doon ca stade Iba Mar Diop te kii di Ndeye Ndiaye Tyson tegoon ko mise ba toll woon ci cinq cent mille francs maanaam téeméeri junni loolu tamit bokk na ci loo xam ne marqué na carrière am bu baax a baax a baax écrit boo xam ne ni moom ren boo bëggee dégg dëgg daal ah loo ci mën a dégg daal am nañu dix victoires ak wii defet mu mel ni ki yoof daal ren boo bëggee dégg dëgg xale ya ñoom ñoo assuré mbir yi waaye mbër yu mag ya moom gisee su leen ak ay bët moo tax nag ka jiite wala ka leen yore di baytir ndooy moom la mu xëy di xam le ne na daal li ñu bëggaat mooy sunu làmb door bi nga xam ne gañe nañ ko fi bu yàgguloo njaay ñu jëlsiwaat ko gañewaat ko te loolu li leen koy may tamit moom mooy gën a liggéey rek Cheikh Ahmadou Bamba Mbuub moom mu mel ni ki nag moom mooy président wu FILS fiis nag bu ngeen ko déggee benn mbir la boo xam ne daal la mu bëgg a taxawal wala li muy taxawal mooy mbër bu nekk daal mu am benn métier boo xam ne ni daal dana ko mën a amee bu bokkul ak làmb ja nga xam ne moom la nekk di ca yëngutu bàmba Mbuub tey xëy na di wax ci mbir yu mel ni ki noonu yëglikaay boobu moom moo xëy ba tey du ñu wax lu mel ni ki noonu Lac de Guiers numéro 2 ci tuuse yëglikaay ba mu ngi ñu xëy di xamal ne daal boo lag daal ah ñàkk na Gris Bordeaux ndax nag Gris Bordeaux ku ne xam ne ne jamono jiinu ne mu ngi ci yeneen contrat di waajal leneen waaye Adama Diouf tamit mu ngay dig ka nga xam ne moom moo di wulli ay duma yu méttee méttee métti ren moom benn niil kese la ñu enregistré ci saison bi yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu ko mu doxoon ci diggante bébé Elton ak nga xam ne moom la ñuy wax ñàkk jariñu numéro 2 Equivox TV moom bu ñu fa demee jax lañ fay fekk muy indi ay leeral ci feebaru mbayang luub ak la ko ca naqari ak diggante ba idaal yi tamit wax na ca di leeral la xam xam ne ni moo ca xew mel ni kon tey loolu moo fi dikkoonte ci yëglikaay yi jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi tey loolu lañ ñu xëy indil moo xam sunu làmb la ba ci Equivox TV mel ni kon tey loolu moo fi dikk tey ginnaaw bu ma leen nuyuwaatee ñaanal leen jàmm sàkku ko ci yiin maa ngi bëggee ñëpp fépp fu soppe Babacar nekk rek maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm rawatina 100 pour cent Babacar ah fans yooyu maa ngi leen di bëgg di leen ñaanal jàmm ak tamit ñi nga xam ne fans club Equivox lañ ak Babacar tamit ñooñu tamit maa ngi leen di bëgg yéen ñëpp di nuyu képp ku nga xam ne tamit même boo bokkul ci groupe yooyu te yaa ngi bëgg Babacar ak foo mën nekk rek maa ngi lay ziar ña nekk Afrique du Sud ña nekk Côte d'Ivoire États-Unis d'Amérique Italie Espagne fu ne partout dans le monde ñëpp a ngi fa Côte d'Ivoire ñëpp ñëpp Mali du ma fàtte ñëpp maa ngi bëggee ñëpp tey nag fa muy ubbee mooy sunu làmb tey xëta mu gis ngeen tey photo bu mu leen tegal ca kaw combat bu bu ngeen ko fàttalikoo moo dox doon ci diggante Balla gay numéro ak Bombardier gis nga loxo yaa ngoonga na nay dem ku yooyu dal maa ngi dégg yëg likaay ba nag moo xëy tey samp laaj di ñu laaj wala boog teg di laaj Balla fi muy jaaraat ngir mbir mii le 28 novembre ku ne xam ne ca la ñuy daje Gaston Mbengue suñu papa tëggu ko mooy combat boo xam ne ah génn ci fi mu nekk nii moom la xëy li kay waxee tey laaj loolu nag li ci am mooy ñoom ñaar li ma waxoon laay waxaat rek ñaar lañ ñoo xam ne nii seen combat moom xam naa ne match nul yaakaaruma mu am ci te yaakaar naa ñëpp d'accord nañ ci lool parce que li tax mooy Balla Gaye numéro 2 wala Bombardier kenn ci ñoom mësul a jël avertissement wu da nga dellu ginnaaw arbitre jox la avertissement si làmb ñun yàgg nañ leen di ba tey mësuñoo gis loolu Bombardier avant 2000 laa ko commencé di ko seetaan Balla Gaye numéro 2 ba mu yore Mbapat Stade Assane ragal ci làmb kon defe naa seen combat bu njëkk la ko gaawaloon loola bokk na ci ndax dañoo daje ba bëriwuñ sa deux minutes làmb jeex te xalaat naa ne bii itam noonu lay demee kantaan nag ku ci ne na Balla def ba génn ca wala leneen leneen loolu moom mooy liggéey te defe naa ne mu ngi ci liggéey ba ba ma jëyit mu ngi ci liggéey bi kon nañ ñaan yàlla le 28 novembre jot rek ñu ñaan yàlla fekke ko arène national que le meilleur mais làmb la joo xam ne ju nar a neex la war a doon incha allahu rabbi keneen koo xam ne gis ngeen ko tey yëglikaay bi xëy na tey dalal ko muy Boy ñaa doomu De Gaulle le fils de De Gaulle la càppaacoli comme ni ñu koy waxee ci làmb ji moom nag ñëw na ci premier kase bi nga xam ne jëkk na ko ga jëkk nañ ko ko fay muy cent vingt mille euh, cent vingt mille francs ak itam defet bi mu njëkk a am ama mbër bu ndaw boo xam day doog dugg ci làmb bu buñ ko fayee kase day neex si moom nu mu mënti toll xam naa ne bis boobu yooyu woon ci Boy Niang numéro 2 defet boobu mu amoon tamit nee na bés boobu guddi googu nelawul gis nga defet mbër dëgg-dëgg noonu lay mel buñ la gañee wax dëgg yàlla bu nit ñi tëddee yëpp ñoom ñëpp di nelaw yow war nga ubbi say bët di xalaat li ma def ba ñàkk lan laay defaat ba bërëbu ndiiraat maanaam ba avancé waat dem si kanam mel ni ki nag loola mu ñàkkoon bis boobee ko teree nelaw daa mel ni am na ay leçons yu ci tiré ba tax tey mu egsi fi fi mu egsi ci niveau làmb ku ne gis na ne tamit cent vingt millions ko fayoon tey defe naa ne ay millions lañ koy fay fi mu nekk nii kon lu nit ki di nekk rek di ca di ca yëngut rek wane ca fulla ak fayda rek waaw parce que waykat ba noonu na daqaar sa boo koy jaay boo amulee fulla ma ñam da koy daal di jeexal boo ñaa nekk xale boo xam ne macha allah yàggul ci làmba ah, vraiment mais itam tey bokk na ci les meilleurs loolu la yàlla doga ndax ku dem ba bëri ak Lac de Guiers wara war a bëri ak Tapha Tine war a bëri ak Balla Gaye numéro 2 te ku ne xam ne ñu ñoo ko jiitu su làmb ñoo ko jiitu carrière u làmb ça veut dire kon su liggéeyu kon du am mérite boobu parce que fii gars yi amuñ jot ak di kenn ay fleur mais li nga def rek te mu jaar aw yoon nekk lu man luñ mën a net li ñun ca loolu la ñuy wax leneen la ca des nag moom yàlla na ci yàlla musal parce sunu yoon newu ci duñ ko sax lijjanti waaw ba tey bu nu continuer écurie Yoff ñoom tamit ah ren daa mel ni dix victoire huit defet la ñu def mel ni kon ren daa mel ni mag ña moom doxaluñu waaye gune ya moom doxal nañ ndax ku ne gis na fa ay xale yoo xam xale yoo xam wàcc nañu bëri ah, ah waaye nag mag ñoom daa mel ni dañoo ndax Malick ña ngi wàccul moo ja dafa ñàkk kombaam yaa ngi dégg waaye ku mel ay caatu ngel ak yenn def nañ lu leer waaye baytin doon ma jiite nag moom li mu xam ne daal nee na loolu lépp gis nañ ko waaye li ñu bëgg ñoom suñu làmb door bu fi gañe bu yàggul ñu dem jëliwaat ko ah loolu nag liggéey moo leen koy mayaat ndax écurie Yoff moom ku ne xam ne ne fi nekk nii écurie la boo xam ne bu bokk la ci làmb ndax mbër a nga fa ay mbër yu bu ñu waxee fiis wala bu ñu waxee bàmbam suñu xel day dem ci fiis fiis nag benn mbir la boo xam ne nii moom da ko taxawal ndax bàmbam mbub benn sénégalais bu nekkoon à l'étranger nekkoon moodu moodu ñëw Sénégal tamit yëngatu ci métier am garde rapproché ba am ca lam ca war a am ci xam-xam ak lépp bi mu ñëwee nag mu bëgg loolu nag mbër yi mu di leen utal ay métier ci lu jëm ci lool defe naa ne ay at a ngi ni mu di ci yëngutu ba am na ci mbër yoo xam ne tey am nañ ci ay salaire man naa ci lim ñoom Tidiane Faye ñoom Amanda ak yeneen i mbër yaa ngi dégg bëri nañ xam ngi tey ñu koy ñaanal yàlla mission boobu rek yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir ko moom Bamba Mboup waaw euh, di wax que ni loolu am na solo trop trop trop trop hmm? waaw euh, tournoi CEDEAO bi tamit waa tey euh, bàyyi leen xel que ni ah daa mel ni fi nekk nii daal ah daa mel ni ca côté euh, euh, euh, la nga xam ne nii moom mooy cent vingt kilos daa mel ni soit ba daal dinañ ko def waaye mais boo xoolee daa mel ni entre ci général Malika moo fa nekk hmm? ak ki nga xam ne ni moom mooy Boy Faye ak Ngañ Seen waaw xaw ma nag kan lañ ciy tànn waaye il fallait que tànn am waaye ñett ñëpp kuñ ci tànn rek mérito nga ko parce que Boy Faye moom mooy détenteuru drapeau chef de te général Malika tamit ku ne xam na ne ren région de Fatick ba mu doon représenté ci drapeau chef de l'État wala na fa boppam bu baax a baax a baax a baax a baax ci prix ba nga ci catégorie ba mu doon jongante muy 120 kilos ngañ seen tamit di xale boo xam ne moom la ñuy woowee John Sina yaakaar naa ne xale la bu doya doy waar boo xam ne bu jar a bàyyi xel la xale la macha allah te itam mu ngi wane la ci làmb ndax fa ma ko njëkk a découvrir moom mooy daaw ci Gambia ci tournoi Fallou Ndiaye ba falaa laa ko découvrir mooy xale bu am solo kon yaakaar naa ne ku ku ci direction technique bi tànn rek pour boole ci cinq cinq majeurs yi nga xam ne ñoom ñu war a représenter Sénégal ci tournoi CEDEAO bi rek dama naan mérito nga ko si ñoom ñoom ci plus de cent vingt kilos yi quoi tey nag loolu moo fi dikkoon ci yëglikaay yi di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak jox na fi yàlla def jàmm hmm? nag ne làmb ji ngi waaj a ubbi ndax bu leen ko fàttee samedi góor production ci arène nationale 1 million la fa teg waaye lendemain ba nag Iba Mar Diop jëm ak Jax 3 millions muy le 3 kon yaakaar naa fi mu nekk nii kon amateurs yi ah lañ doon jooy wala lañ bëggoon daa mel ni mbir léegi mu delluwaat fa mu nekkoon parce que tamit amateuru làmb moom la koy neex mooy bu liggéey semaine bi yëpp ba mu jeex weekend ba nag mu mën a dem ci stade yi nag xam nga loisir dund loisir am maanaam bége daal gisante ak ñi mu gëjoon gi seetaan làmb mu neex parce que sunu cosaani réew la yaa ngi dégg loolu moo fi diggoon tey di ñaanal ñëpp jàmm di wax que ni gars yi yàlla na jàmm yàgg Sénégal te sax fi at sax ci àddina bi aussitôt di ñaanal sunu kilifa diine yi nga xam ne amuñu lu dul ñoom ñu ngi leen di ñaanal yàlla xalifa généraux yi rawatina yàlla leen fi yàlla yàggal te sàmm seen ay taxawaay ndax ñoom nag ah wax dëgg yàlla am na njariñ lool lool lool ci réew mi nu ne di Sénégal parce que nag taxawaay yi seen maam yi at amoon ak seen jur yi moom rek lañ fi amee donte que nag àddina moom li olof ne daanu dajul suuf parce que da gis ñu mel ni man ay mécontent sax laa leen di tuddee wala ñoo xam ne ñoom ñoo xam la ñuy def lu lu ñu ci jublu di wax naka su noonu waaye loolu mënee su koo bañ ndax li tax mooy addina ndegam nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam moo féppoo ni noonu kon defe naa képp koo nga xam ne da ngaa aw ci aw yoonam hmm, nga danga koy liggéeyal bul xalaat mukk ne yow doo am ay noonu ba addinay tukki noonu lay demee ndax am na ñoo xam ne tamit xulle yàlla daf leen a nattu seeni xol daa baaxut waaw am na ñoo xam ne dañoo soxor waaw te xolub kiñaan maxu lébu gi noonu na dina lekk borom ba mu jeex te du ci man dara yàlla nañ ci yàlla musal waaye ñun daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan jàmm Sénégal di ko ñaan ci àddina bi di la wax ba suba waaye nag am na loo ma waxoon defoo ko waaye maa ngi xaar moo tax it man du ma wax waaw am na nag lu ma gis waaye damay noppi rek waaw waaw damay kuul sama kuul ba suba incha allahu rabbi Thiago.